salaamaaleykum maa leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam man maa ngi tudd Omar Gadio chargé tout ce qui est électrique euh, dans la commune de Bambilor li ñu leen bëgg a leeral mooy poteau yi fi ñëw te andi tuuti ji xija poteau yi amul ko ko andi lu dul commune Bambilor poteau yi ngeen gis fii nii muy bois yi taxaw ak béton yi ak fer yëpp commune Bambilor moom moo def démarche yi euh, man ak monsieur le maire ak euh, certains responsables ñun ñoo demoon mais li si gën a bëri nag moom du am temps man maa dem leeral ko andi ko tey jii boo leen gisee sax si image yi dinañ leen kon woon ni am na benn oto Senelec bu ñëw wan leen ni ñoo ñin Senelec moom moo indi euh, ñin ak waa Senelec maire bi ñin ñëw indi courant mais du keneen koo xamante ne tey ku fi taxaw ni moom moo ko andi si archi faux quartier Baye Anne la ñuy nekk fii yëpp ñun ñëw ko dugal te du fii rek lañ yem Medina Bambilor boo leen fa demee di ngeen gis ne ne instant yi nii poteau bois yi dindi nañ ko tali bu xonk bi jëm yoonu mbëtt bi ñu ngi dindi poteau ñu ngi changé yeneen poteau teg nañ foofu noonu sax benn poste courant boo xamante ne mu ngi si kaw tali bi ku ñëw di nga gis bon nag bu ñu leen di wax ne carrément ne nee leen ne ne am na ay responsable yu jóge fële tey envoyé ay wax ne ñoom ñoo ko andi loolu du dëgg te boo leen bëggee firnde ku ma si woo man amul lu ma si làkk ku ma si woo dinaa la wax ñun ñoo ko dugal amul foo xamante ne da ngay dugg ruq foofu noonu ñu ne la benn responsable ko du lu dul mairie Bambilor mairie Bambilor moo dugal foofu moo def extension yi te du ñu yem fii nii boo gisee nag lii waral coow li yëpp si euh, quartier Baye Anne bii ni mairie bi bi ñuy dugal fi ni extension yi doona gisee euh, poste courant bi ma nekk si ginnaaw ni bi ñu fiy dugal nii maire bi dafa joxe ñaari numéro benn bi numéro Issa Anne la te mu nekk wetu post bi ak un certain Ousseynou Mbaye Ousseynou mbay moom bi ñuy joxe numéro moom ak maire ñoo nekk ndowoon moo tax ñu jël numéro bi joxe ko bu Senelec ñëwee nag ñoom bu ñuy ñëw man bu ñu ma contacté wul à part Omar bu ñu ko contacté wul dañuy contacté ñi nga xamante ne ñoom la seen numéro nekk foofu ñoom ñoom ñooy mën a dalal ñooñu mën leen a guider wan leen fi ñuy samp ak yooyu noonu bon nag moom Ousseynou mën na bàyyi wax ji nga xamante ne da koy wax naan ne moom moo fi dugal moo dugal mais mairie bi moo ko dugal te ku si bëgg a am firnde yu leer nañ boo ñëwee ñu tegale la papier yu leer nañ nga xamante ne mairie bi moo dugal li amul keneen ku ko du dugal lu mairie bi